أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب أنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم الفاتحة آمين يا رب العالمين arabi ñu fekk si di ko nuyu ak njabootam di nuyu ñi nga xam ne ñooy suñu gan yi waa kër maam sëñ Touba ak maam waa kër maam ak yeneen këru ñu ñëw si bés bi nga xam ni yàlla def na euh, ki nga xam ne mooy seen doom di maam Abdoulaye mooy président bi commission bi mu organisé woon tey nag li nga xam ni moo jëmoon ci euh, tegum xeer bu njëkk si jumaa ji nga xam ni boobu ba léegi ñëw ci liggéey kon dañuy wax rek alhamdulilah yal leen yàlla fay ndax euh, li ngeen ñëw lu leen ci gànde waaw si ngeen yaru si ngeen nekk ba ñëw fi mottale rek lépp luñ fi def daal yal nañu yàlla fay ñun ñëpp te lépp luñ fi wax wala luñ fi jëf yal na dëppook li nga xam ne mooy njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa kon jërëjëf ñoo ngi leen sant di leen ndokkeel euh, mbir mi nag ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp ñun ñëpp ko bokk kon euh, dañuy ndokkalante rek waaw yal na yàlla fay leen yal na yàlla sàmm leen waaw kon euh, lii moom dafa rafetoon. bu ñu demee ba nga xam ni ñoo ngi dal tuuti ñu gisante saafonte ndax loolu moom ci la bokk yan na yàlla dëppale xol yi yal na yàlla sàmm ñu yal na yàlla def suñu suñu gëm yàlla gën a yokk waaw musal ñu si lépp luy lor bi jaay seen wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu euh, ñu ngi leen di ziyaare euh, Mbacké ay Aïssa di la jiital ci mbir mi tubaarkàlla di la jox sa wàccuwaay tubaarkàlla ñu ngi sant bu baax a baax waaye nag dama bëgg ñu xam li nga xam ni mooy mbirum bilaal bilaal moom topp ci gannaaw imaam rek dagam comme imaam yi yëkkat nañu ay kàddu ba pare daal fa tabarakallah man mi daal maa ngi jégalu daal di sot sama kàddu ci kàddu imaam yi fa tabarakallah macha allah كن مكي السلام عليكم ورحمة الله زيارة ديال بالأخ ديال بالأخ خمنا لن يوخ ونكتو في بلدي جاي دفنا أورينتاسيو بباخ باسكو بسو عندي سي كليفو ñoom ñu jël kaddu ba pare bu jaadu njaboot la ci teg ti kaddu dañu wax ni ku am kilifa du gàggante koo ci mbedd kilifa kenn du ko jiitu kilifa dañ koy déglu mu wax nga jëf mu taxaw kàddu yi dañ ma ko jox rek waaye bu doon loolu dama toog déglu rek waaye nag teraanga moom bu ñu la ko joxee sañu nangu sañu bañ dangay nangu waaye dinaa ci teg tuuti ay kàddu rek delloo leen micro bi Eh, dana seedeel ni mboolam yéen ñëpp sunu doom ji nekk sunu biir yal ko yàlla lafal cat dañu réere woon ci jàkk ji yëpp bu ñë bu mu ñëwee ba léegi ci loola taxaw dina fàttali sunu digganteeg sunu boroom digganteem ak nit ñi digganteeg kilifa yi ci moom te la doon teg ci yoonu siratal mustaqim loolu la waxtaanee ñun mun na loolu lu nu jaaxle bu nu agsee ci moom mu tax taxaw ci lu mu ci war taxawee bu nu bëggee jaxasoo sax moom daf noo delloo si bu waxee rek nu dellu si dellu si wàcceewu kon nag yenn ko yàlla fal cat <coughs> yenn yàlla guddal fanam nit boo ko dee gërëm da gërëm ci kanamam mbokk mi lépp la nu manqué woon moom mag ni ko motel nu ngi lay gërëm di ko sant di di la dénk suñu bopp nun topp rek lu nu fu nu bëggee jàdd sax nga woonu woon noo la jur waaye kilifa nga ci nun tey waruñu jiitu dara wasawaare ko law kon nag sëñ bi yow ñoo lay gërëm di la sant ku xam Seydi Hadj ak Serigne Touba ñoo xam benn benn la ñoom ñëpp ñoo jógandoo Fuuta ñoo ngi lay siyaare fa siyaare da yem la ñu commencé di siyaare la balo ak kaddu gu nu jël sa kanam toog rek la moo waroon. yal na yàlla defal leen cat yéen ñëw nga ci jàmm yal na nga dellu ci jàmm ak salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci turu imaam Seyd Mouhamadou Arabi imaam ratib grande mosquée bu Léona Niassène ci turu mbooleem njabootu maam El Hadj Abdoulaye gi yëpp ñu ngi yëkkati ay kàddu di kàddu sant yàlla. lii suñu maam Cheikh Ahmad Bamba waxoon alhamdu wa shukru maan lillaahi ndax mag ñi dañoo teqale woon xamd ak sukkur xamd mooy cant gi jóg jëm direct ci yàlla sukkuru mooy gërëm nit lañ koy def moom nag mu boole ñaar yépp wane ni li jaar ci nit ci yàlla la jóge ak li jëm ci yàlla direct mu boole ñaari alhamdu wa shukru maan sallallahu alayhi wa gën a beesal suñu ak suñu nangu suñu jébbalu mag ñi nga xam ne ñoo ñu nàmbatal ci diine bëggloo ñu ko soppaloo ñu ko toppaloo ñu ko euh, ci loolu rekk yaakaarante rek la mag ñi àndee woon ku ne jàpp ne sa moroom moo la gën a jege suñu boroom ba ñuy jiitalante jiitalante boobu dem ba macha allah ñi fi sosoon daara euh, dem ba daara yooyu jur ay këru diine këri diine gu nekk tey li aju ci ay daara ay junney junney junney la paase na réew mi paase na Afrique mu ngi dem ci àddina bi euh, ñu nekk fii ci Ndar nag ci Cité Ñax di doon def pose première pierre muy xeer wu jëkk tegu xeer ci jumaa yi cité ñax bii nga xam ni bokk na ci jumaa yi mujj ci ndar waaye nag alhamdulillahi di jumaa joo xam ni e, mujj na ci jamono waaye mujjul ci taxawaay ndax yàlla def na kilifa yi fi nekk ak seen taxawaay kenn ku ci nekk dëkk cité ñax da nga indaale sa expérience ak sa diine ak sa kii bu mat sëkk ci wàllu diine ñi fi jiitu ak ñi fi nekk suñu waxee jumaay Cité Ñax ji nag suñu xel dana dem ci imaam Alpha Cissé suñu xel dina dem ci imaam Seydou Omar Diop suñu xel dina dem ci alxaaji Magay Cissé suñu xel dana dem ci alxaaji Idda Diop suñu xel dina dem ci alxaaji Samba Fall suñu xel dina dem ci Jibril Dikko mi fi mujj jóge suñu dem xel dina dem ci Cheikh Ahmed Mbeng suñu xel dina dem ci kilifa yi nga xam ni ñoo nekkoon ci jumaa ji ci góor ak yi jigéen dañuy tudd ñooñu rekk doyloo ndax ñoo fi jëkkoon kenn ku ci nekk ci tâche yi nga xam ne moom la yore tey ñoom mag ñi ak ñenn ñi seeni doom ñoo leen wutu tey te loola ndam la moy sa way jur nekkon ci dara nga dem bam yag yàgg nga ci sa bop dama gis kilifa gu am doole ci walu aduna ma ak mom ci touba mu tak ndigam di joxel bopam café moma ma sax dama señ bi nan ci café gi maniko ah yow munoo tok noppalu manga di xale yi séddale mune ma café gi suñ mam ci lañ amé dara tay. ba nek japon nek états-unis nek fune daan ko def ci suñuy bàyyi di ko def mooy suñu bunt su ma màggal fekkee ci bitim réew te ñëwuma def ko damay yëg ni at moomu samay mbir du baax mu ni ma looloo tax su ma ñëwee foog maa koy defal sama bopp dugg di ko yëkkati loolu li muy tekki nag mooy kenn ku ci nekk war nga seet yoonu mbaax wi sa jur tracé woon mooy gën a yomb ci yow nga sos sa yoonu mbaaxu bopp te mag ñi dañ daan jaamu yàlla ci xeetu mbaax dañuy ñëw fekk kenn def nangam ñu ne ah kii de def na lii xaaral ma seet beneen koju koju jaamu yàlla boo xam ni dégg guma ku ko def ma jéem ci wéet def def ko rëdd ko wutal ko yoon ba ku ñëw jaar ci yow ñu dégg ci xadiis bi nga xam ne man sanna sunnatan xasanatan fa lahu misru ajri failihi kon lépp luñ def julli yi ñuy def sax yàlla moo tax ñuy julli waaye danañ ci bindal ñi nga xam ni ñoo ñu nàmpatal julli ba bis bu set ñu am ci moo tax xale avant muy majeur lum julli ñu jox ko woy waajuram dañ ko ciy verser parce que moo ko koy sant bu demee ba àgg foo xam ni nag euh, mag la kenn dóoratu ko muy julli mu continuer di julli ñu commencé gis ne kii mënoon naa jàdd waaye dafa continuer kon wax dëgg yàlla fi ne nii jar nañu ubbil ko compte boppam ñuy gërëm nag. mandi li yéen a ko moom ndax ku ci def ci lu baax wax dëgg yàlla mënoo koo fay muy tànk yi ñëwee muy yëngatu yeeg xarakaat yeeg yep ndax seen ittee moo dem ba ci kilifa diine Sénégal yépp moo tax ñun ñu daje fi ngir taxawal lii ñu ñaan yàlla yàlla may ñu ñun ñëpp kenn bañ ñu ubbee ga te dund ay at celu gannaaw la ko féete gannaaw ñi nga xam ni ñoo doomu assasi nga xam ni ñooy fondateurs yi nekkoon fi ñëw liggéey ba retraité jël seen kàttan ak seeni doole jox ko yàlla gis ku nekk directeur général nekk lu ne ci administration ñëw gàddu mbuus Alaaji Idda Diop di di dajaleel jumaa ji rëyu koo def te booba ay doomam ñi ngi fi nekk ay notable nekk ay kilifa waaye mag ñi dafa am lu ñuy lu ñuy liggéeyal dañuy liggéey ñoom ba am àjjana waaye dañoo gëm ni suñ demee àjjana alaxira jot ñoom kese ñu dugg gàcce la ci ñoom il faut mu am kuñ yóbbaale ndax Iblis taxaw na ni dana am ñum yóbbu moom ñoom it ñu taxaw ni dana am ñoomit ñuñ yóbbaale looloo tax ñuy liggéey bay fàggu loo xamee ni dañ koy fàggul seen njaboot di gërëm nag ci taxawaay yi taxawaay bi nga xam ni euh, mat na sëkk ba matalaale yi nga xam ni sax ñëwuñu te ñëpp a ñëw ndax tuubaay tiwaawan tiwaawan mooy ñeseen mooy njaasaan mooy canaba mooy fépp te xalifa yi tey ki nga xam ni moo ci ëpp at di seen kilifa ñoom ñëpp kuy wax tudd ko mooy cheikh Mouhamadul Muntaxa Bachir Mbacke yàlla dëgëral taxawaayam te ku ne xam na ni xataay bi nga xam ne am nañ ko ci diggante fan yi poroxaan université yi téeméeri programme dañ koy am parbis suñ bàyyee ñëw ci yow rek kon sa am na lu mu tekki kon moo tax wax dëgg yàlla duñ cof mukk sonn nañ lool ndax toogaay yeeg yépp waaye nag il faut ñu sonn ndax àggaguñ dañuy wewu fi seen maam Cheikh Ahmadou Bamba taxawoon jaayante jëmmam kenn jàppagu leen poñe leen yëkkati leen yóbbu coono gi yépp toog ñu leen di wax lu neex wax lu baax ak ñuy gindi jaam yi ñuy séentu ko ci ñoom moo tax kon wax dëgg yàlla luñ sonn sonn sonn danañ dugg ci terrain bi jihaad jihaad nag mooy def effort supplémentaire ndax seen maama waxoon inni ujaahidu بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد تمام رك مو ديمون مي بي مي ديلوسي دا فا نيانال نييب ني اجعل رجوعي الى قومي سعادتنا والتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا مانام ماي ليغي واي يو يالا يالنا nga deggu ci sama retour bobu pour mu nek bonheuru senegal donc lolu magni lolu lañ dan ligey suñu maam cheikhul xaaji malik si radiallahu anhu nekk ci dëkk bi ndar ñu defal ko fi teraanga mu jur fi taawam am fi ay sët am fi ay sëtaat liggéey fi ci diine liggéey bu mag suñu maam Cheikh Ahmad Bamba ñëw ñu defal ko fi ay teraanga ndar di capitalu AOF sànq am na ko ko wax yàlla dimbali ndar ndax capital fi lañ daan jële nit di ko teg ay nattu waaye yàlla ba mu naree dimbali ndar mooy mag ñi ñëpp fi lañ leen terale ndar dëkk la boo xam ni buñ ni pétrole feeñ na fi warul jaaxal kenn ndax mag ñi nga xam ni ñoo fi tëdd sopp nañu yonent bi sallallahu alayhi cofeel goo xam ni ci Sénégal yonent bi lépp lu am foog mu sédd ci waa Sénégal ndax cofeel googa kon pétrole ba nekkoon foofa bañ demee ba ñoom jàpp ne yonent bi mayu leen ko ba ñenn ñi taxaw sax ni bàmmeelu yonent bi dañ koo war a dindi ci ñoom Sénégal ni jox leen ñu ñun mag ñi tagg yonent bi sallallahu wax ko loo xam ni dem nañ ba sax naan ñun dañuy jaamu yonent bi waaye ñun xamuñ yàlla yonent bi moo ñu yàlla te yàlla it moo wax nañu yonent bi mooy sama bunt ci yéen ku bëgg ma bëgg la dangay bëgg yonent bi boo bëggee yonent bi yàlla bëgg la kon loolu lañu sant yéen ci ngeen nekk di ko xidmaal di ko liggéeyal yal na yàlla barkeel liggéey bi yépp ñaan waxin la waaye tey yéenay ñaan ndax nit bu demee ba am juróom-ñaar fukki at mm-hmm. euh, déconnecté nañ ko ci àdduna connecté ko ci àllaaxira lépp lum yàlla toppatu ko ci dara bu mu demee ba am juróom-ñett fukki at rawatina jëm juróom-ñeent fukk comme suñu bàyyi alaaji aadama sëy wax naa ko ko sànq yow nit ñi léegi koo gërëm mooy texe maanaam sa compte àddina yi waxatuñ ko waaye àllaaxira képp ku seddal sa xore xolam sedd loolu moo am ci seen jëmm yi moo xam ñi fi nekk ndaw moo xam ñi ko amagul di wéyal seen tànku baay yi ñu doon def ndax ñun lu bëri wax dëgg yàlla fekkewuñ lépp waaye am na ci loo xam ne mag ñii ñu tudd kenn ku ci nekk dem daan dem guddi gu nekk sëñ bi yónni ma ci moom jumaa ji lii nañ def lii nañ organise di dajale seen xaalis ak seen pension di ko ci def bu demee ba seen pension yooyu jur tey ñu taxawal lo xamni ne ju ñuy rëdd xaalis biñ ko wara tabaxé presque lépp taxaw loola sant yàlla la kon wax deug yàlla amna ñuma wo ci ay kilifa amna ku jël engagement ni sonorisation bi insha allah ëllëg dana ko def amna na ku ma waxit ne ma moquette yi te loolu lay def mom daf koy importer nee ma insha allah lépp lu jëm ci walu moquette nañ ko ko wax mom bu doon tay mi ngi ko tek waaw ci nu mën a toll ci mètre carré ci moquette yi nga xam ni qualité la parce que loolu lay liggéey woo nañ ma wax ma ko waaye nit lañ yoo xamee ni wax dëgg yàlla ci loolu la ñu yëngu euh, it it xam naa ni incha allahu bu ñu paree ci lii danañ dem ci yeneen kilifa man kay li may ragal mooy jumaa ji jur yeneen waaw maanaam dem bay jouer rôle boo xam ni moom la masjid ji jouer ndax jumaa mooy siège social ci lislaam ñu dem ba jumaa ji daara ja gis naa ni étage lañ ko def daara ji di jur lu bëri nit ñi di jur mbirum association yu bëree bëree bëree bëri bëri parce que jumaa warul nekk rek jumaa joo xam ni dañ ciy julli buñ paree ñu tëj ko nit ñi ñi ngi am ay problèmes yoo xam ni mënuñ koo wax waaye imaam mën nañoo yoot ñëw ci moom wax ko ne ko nangam ak nangam. du tout daal kàddug mbégte kàddug kontaante kàddug santu yàlla moom la ñuy wax. ak di ko bokk ak ñi nga xam ni wax dëgg yàlla jëmm yu tedd lañ fañ jóge di lu fu tedd ñëwit foo xam ni macha allahu fu tedd la ndax teraanga ji def leen fee jiitu kon ëppalee leen ci ci dara ndax fastabiqul xayraat concurrencez vous concurrencez vers le bien loolu la yàlla sa digle loolu ci lañ nekk di gërëm di sant bu baax di gërëm it maam Euh, ci taxawaay bi taxaw wuutuñu ci ñun ñëpp ndax bu fi taxawutoon it ñun ñooy sonn di jéem a wéyal Kaolack di nekk dakaar di jéem a it sàmm kóllëre gi ne Ndar waaye du moom yéen la yéen a am reconnaissance ak kóllëre goo xam ni yéen a bëgg jox jeunesse bi exemple ngeen jël jeune comme ñoom muy wax ci langage bu transversal ci ñaari wàll yëpp ñëw teg ko pour mu mën a xam def discours boo xam ne dëppoo na li muy wax yéen ko gën a xam fuuf ndax yéen ko ci jur waaye nag alhamdulilahi def ngeen la yonent bi sallallahu alayhi defoon ba mu jëlee Usaama dénku ko drapo lislaam bi ndax xam na ni luy doole jeunesse bi ak jigéen ñi la kon amatuñ droit di def dara si te wane nañ taxawaay boo xam ne taxawaay bu mat sëkk la yal nañ yàlla may ñu fekkee ko te mboolee mi yool buñ ci am yal na ci ñi nga xam ne ñoo ko fondement woon te ñu tudd leen léegi ci ñu tudd ci ñenn ñi mu fekk leen fa ñoom ñëpp mënuñ tudd ñëpp waaye yàlla xam na leen yàlla yombal lépp lépp lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa nañ kontaan nañ bu baax ñu ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi sallallahu taala alayhi wa sallam ba nu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci kenn képp muy Seydina Muhammad di sant mboole seen ñi rot ci jotaay bi yëpp la tàmbalee ci mag ba ci ndaw ba ñuy dox ci palanteel bi mbedd mi di dégg kàddu yi muy kàddu baraka loolu ab cant la ab cant nag ci doomu ndar ku ne xam na ni mu ngi jiitoo ci Cheikh Ahmadul Xadim Xaadimu Rasuul bi mu fi ñëw liggéey indi ko fi indi fi boppam muy mission boo xam ne fii la ko aboutiré te li ñu fi am ñun fii ci dëkk bi amul benn dëkk Sénégal bu ko fi am Touba mii ñuy siiwal ak jumaa ñu tedd yee amu ko mooy Sëriñ Touba kenn ku ne xam nga ni toolu buur gi jaar na fi ku ne xam na ni labourage gi jaar na fi ku ne xam na ne balakoos gi ku ne xam na gis nga tubaab fakal teenam bi ku ne xam na loolu la mu fa kon sëriñ bi si sillonné na toute la région de saint kon mbaax gu juddoo ci saint bu mu jaaxal kenn wax nga ko léegi xalifa mag ñu baax ndax max ñu baag ñoo amoon yar ak teggin bu toon na li bay arab bi waxoon sànq ni ko dama fab xale bi di ko ayoo nen ne ba mu koy ayoo nen ne am na baat yu mu ko doon ayoo ne yooyu battee xam na ne am na njëriñ mu naan gis naan kon nag nanu yar njaboot gi c'est très important ndax lii nga ñuy wax tey ñi fi toog ñëpp xëy na mag ñi ci ëpp ay ndaw lañu amaguñ soixante ans wala amaguñ soixante-dix ans as tuuti ko fi am te ñoom ñëpp it macha allah di doom yoo xam ni kuñ ci taxaw sa kanam nga am sakk waxuma la sakk waaye da ngay am doylu ak yaakaar goo xam ne gi boo xoolee ci seen dox nga xam ni ñii lii ñuy dox ku ko roy da nga di nga am yàlla alhamdulilah rabbil alamin loolu ñu sant ci bu baax ki nga xam ne mooy Cheikh al Arabi di suñu këlifa di suñu wéyjur di suñu baay di suñu xalifa di suñu xalifa njaboot ak suñu soxna ñu fab nag buum nos ci sunu baat jébbal ko ko bi mu demee ba door ci ñu jébbal nu njabootam waaye njabootam mu jëw na poussé bi mu réer ah dëgg la si ta ñax rëy na waaye lu amul fenn fii la am ku ne xam na ni fii ci ndar ki leen sànq ab soxna la ku ne gis na ko ak kaanam te muy jigéen te bi mu dikkee di leen dalal di dalal ñi muy dalal am na ci ñoo xam ne kilifa na ci moom ci wàllu baatin am ñoo xam ne kilifa na ci moom ci wàllu zaahir ndax jëkk na ci li càmminam xaritam mu cheikh al islam arabiya Niass kon mu tombeeg Mbàkke Bàlla ngay dugg si ñu dagg wax jépp ñëpp jóg taxaw gan yi ñu waa comité bi ñëpp song la teeru la teral la nga wax ko sànq ni teeru ci gan muuñ rek rek doy na kon ba nga ñëwee ñëpp muuñ nan la waaye ba nga ñëwee ñëpp ree nan la macha allah tax ngir mbak ngir ngir mbàkke barkeelu rek ci ci sa barke maam tey wax na benn wax yoo xam ne Alioune Diallo wax na ko ne leen waa kër sëñ Mountakha ko fi jëkki indi fii ci ndar ci ñu taxawal juma muy premier lancement dëgg la fekkee muccul maa allah ji ngi ni mënoon na ko mënoon na ko ndax moo àndoon teraanga ci ci loxoom la tegu naw gi bare na lool ci ñëpp waaye la tegu na ci loxoom te moonte ndi jotaay bi moo ci gën a ndaw waaye alhamdulilah rabbil alamin bi ñu ko yàlla subhanahu wa taala joxee ko mel na moom surtout nag mu am kiiraay boo xam ne kenn mënu ko muuri am na mag ñu baax ñoo xam ne ci jotaay bii ma gis leen seen xar kanam wallahi azim ku ni yéen wallahi doo dugg mukk ci mbooy doo dugg mukk mbàkke ci mbooy ñii seen yar ñii seen teggin ñii seen teraanga ñii seen jëf ju baax seen jëf ju baaxu njaboot te ba nëgg ne nag wonoo bàyyi saaku bi li li xale bi wax léegi kon xam na ne saaku bi am na lu ci ne Balla si sa maam a ngi ci biir sa maam ngi ci biir ba fees del wax na ko léegi duma ma ko répéter tudd léegi tarixa ci na baa ngay ak yëpp ci yam ñoom ñëpp benn baat rek lanu fonk moom la ñu wéy ko muy baatu laa ilaha illa allah muhammad rasulullah mbàkke di ñaanal yàlla nag xalifa bi yàlla fi yàgg te wér ndax nag wax dëgg yàlla moo même di macha allah laf cat yàlla ci yàlla sàmmal ko boppam yàlla aar ko gën a rafetal ndax lu jóg ci réew mii loxoom dugg na ca baa loxo njabootam dugg na ca fu mënul dem ci réew mii bu demul dana yabal njabootam ngi dem taxaw baa ngi nii yaa ngi ni toog ñuy janoog yow te loolu yombul <laughs> du ku nekk kay am am na péete boo xam ne boo ko fa féete woon di ko woote ba ëllëg doo leen gis te teewul boo ñëwee ni mbàkki ñun la faal wala nga ñëw ni mbàkki ñun la sëggal ñu ñaanal la du leen te gàdd seen ngor bi nga teewee sunu kanam jëmm jooju nga di indil sunu wuy ji yëpp tubaab fa kanam am am kontante ci lii ndax dama wax ne Tënj Geen bu ma la waxee lii mosu fi am lii nan waxante dëgg lii mosul am fii mag mu ne nag jaar na fi ak sa teraanga waaye ku ci ne sa teraanga dafa am foo ko yàlla yemale woon bi ñu jëkkee tàmm imaam muy jeunesse ñu dugal ko suñu biir xale yëpp ba bëggal ko seen bopp la imaam na alhamdulilah rabbil alamin lii di nit baax yàlla yàlla may ko te dina ko suñu biir te ba mu ko waxee kenn contesté wul kenn contesté wul moom kay moo bañ. ta boba mag ñaa ni tok ñi ñoo ko sàkku ñii ñoo ko ñaan ñi ñoo tax lolu am ba nopi nak ñu geelu gannaaw nak war daat ka and ak gannaawam nak naan ka doom nga ayone na doxal ñu dem koku ku la ka defal wax ya sant yalla rek mo kon ma kon ma laaj dañ lay ñaanal yalla yalla yalla fa la cat sa mag ju bax ji nga xamne lu ari bi am sedd na ko amul lu ari bi am mu teyek ci bi kërëm gi wax leen ma kan la ñepp la jox yalla ñepp ba ci xalifa mi xool ko moo ko jur te mënu ko jëriñ dara loo xamul ko demal wut seet ak ma xalifa mooy sa baay mu leen léppam nag dans l' administration léppam moo ko yor te loolu kii lii bénéfice la góor gi boole ci nag wodd boppam ni leen nag damay ñëw jiital leen lii ko mu doy dadoo day balay sa nga ñëw fekkee jotaay bi nga fekk fii ñu nga xam ne ndawal buur lañ te ay jullit te gëm yàlla ba boo ne gisee nga da nga yaakaar ni imaam lañu bu nu solo ba génn te boo leen fekk ci bureau ba da nga leen fekk ak ay kos waaye xol ba fees na gën ak yàlla kon balla sa jotaay noonu la mën a mel lii sa wërsëg sa maama ko séddee du ma ne njabootu sëriñ Tuubaa lu ne am nañ ko waaye bii bala ñu ko am ndax néegu yàlla bii ñuy defaraat nga waaxu def ci sa lor sa baay def ci sa lor sëriñ si def ci seen lor imaam yi def ci seen wallahi azim dinañ ci am lu kawe suñu danañ dund ba ubbi ko bu soobee yàlla ndax nag yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne nag mën ngeen ma liggéeyal waaye daa ngeen xam ne ku mën fay bor laa jërëjëf jaay jërëjëfati jaay bu ma nee jërëjëf jaañ na mel na ne doo njiit doo dara waaye dafa am loo xam ne yàlla kay cëri la doomu aadama dañ koy nangu ci fulla ak fayda ak jom ak ngor tubaab fakal ñu ngi ko àndaloon ñëpp am na ñoo xam ne tey tëli nañu ba toog joxe seen place waaye yaa ngi ànd xale yi suux rek boo waxee nga leen baax na lu xale la war def nga taxaw jàpp ba mu mat ànd kaal nag staff bi nga bi la yëpp nag ndax lu kenn mën fu ko ka dàq te xam naa ne sa doole ji wallaay du sa doole bopp rek yàlla na la yàlla jàppal jaañ waa commission bi ñoom ngi di ñaanal yàlla bu baax bu baax la di ñaan ndax te la nga ji ñu indil muy libido di bijou d'or ci ñun du duñu ko fàtte ilaa yowmal xiyaam archive yëpp jël nañ ko télé yëpp jël nañ ko rajo yëpp jël nañ ko kon Mbàkke sa jotaay bi jotaayu yiw la boo ñëwee fii fekkaat fa nga doyu la nga waaxoo sa tànk ñëw ba ci biir kër Arabi Ñas di sàkku si <laughs> kon xam nga fi nga jëm waaye moom it xamu na fi mu demoon kon yàlla na yàlla boole jàmm ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziyaareel ñëpp ñu duuf ci nag di dund xaj ci cin li suñu yéene ak suñu bëgg ba ak suñu xamba ak suñu dayoo ngeen def nu ko ñuy seen ay jarbaat ngeen dimbilinu jox nu yii cër yu bokk ci yu nu màggal la yàlla na yàlla fay leen yow yàlla na ngeen dund jaañ ba ubbi ko ci jaamu yàlla ngeen ci am lu kawe seen njort yàlla leen bëri si ko yàlla bett bi jaay Seydina Muhammad te ñu ñëpp ñu muurloo ko allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana Muhammad rajim bismillahi rahmani wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, naa mën na wax sax ne sama sama bokki bop eh, yi noo ngi len di nuyu bu baax di len ziaré way di len ndokkale ci jëf ju baax ji nga xamné ci ngeen woté waaye nak nuyo bobu ak ziaré bi yépp nak ñu di yëkëti ci kàddu yu sudi kilifa jóge ci Cheikh al Muntaqa Cheikh xalifatul am li tariqatil muridiya xafisahu llahu waraa jaar ci doomam cheikh Thierno Mountakha dikk ci ñun kon ñun fii jotaay bi ay ndonga rekk lañu fi ndax ay ndaw rekk lañ ñu yónni ñu ndax ni ma ko waxee woon léegi mm. sëriñ bi bi mu la jotee. wallaahi ndeysaan. Euh, euh, am na lu mu la waxoon. Mm-hmm, kon nga xam ne mbir mi <coughs> def na ko muy mbiram. Mm-hmm. jotal na ko itam. sëriñ bi keroog bi ñu waree xëy ñëw ci guddi. Mm-hmm. Euh, ba mu joxe ci digal. kon nag ñun moom tuuti tuuti tuuti nañ ci teewal ñu tol noonu. xëy na ci seen dimbal ak seen baax rek. waaye tuuti nañ ci représenté leen sax nag. waaye kàdduy yi sant rek la ndax lu baax lu tol nii lu toll ne taxawal néegub yàlla ak ni mu rëyee nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne ku tabaxal yàlla lu toll ne tàggum picc bu waxoon tàggum picc sax mel na ne am na picc yu xaw a rëy tuuti lu mel ne tanak bee si des rëy nañ waaye tàggum përantaan la wax alxata muy picc mu tuuti bokk ci picc yi gën a tuuti. sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku tabaxal yàlla ab néeg lu toll ne tàggum picc moomee sax yàlla dana ko tabaxal ay njënde ci aljanna. loolu li muy tegtale mooy euh, euh, néegub yàlla lu ca waaye def lu mu tuuti tuuti kon donte da nga caa sakk sax ab bën-bën ak lu walla lu ko gën a tuuti sax ah yéen nag bu ngeen amee initiative bu toll nii. Euh, dégg naa léegi ñuy tudd lim bi mel na rëy na lool waaye loolu lu tuuti la ci lislaam tuuti la ci lislaam hmm. bu ngeen amee initiative bu toll noonu di ko liggéey woo ci nit ñu baax ñépp bàyyiwu leen kenn waxoon naa léegi ne dafa am yu baax yu rëy yoo xam ne ku la ci woo ne la def ci lañ ci war a def jàpp naa ne danga ko war a neexal ba noppi sax ndax opportunité bi mu la ubbil manam ubil, bi mu la ubbil ngir nga mëna def lu baax kon kaddu sëriñ bi kàdduy sant rek la kàdduy ngërëm waaye kàdduy ñaan ñaan gi nak la ci jitu moy ñaanal leen yalla wéral leen may leen euh dessal leen ak seeni xel dëgëral leen ba li ngeen wote te l'islam rek tax ko ko xamne gu yalla xamne l'islam rek tax ñu diko wote waaye ngeen woote ko nag yaatal ci ñëpp ndax innal masaajida lillah falaa tad'uu ma'a llaahi ahad kon euh, julliwukaay jaamukaay yàlla euh, min baru yàlla ku ko woote ñëpp ñëpp ba noppi boole ci ñëpp kon ñun dañ leen di amal ngërëm ci turu sëriñ bi nee mu ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal mu ngi seen gannaaw itam mi ngi leen di ñaanal bu baax di am mbégte nag ndax lu mel nii day dalal xelu kilifa goo xam ne ma nga fa barab xëy bu fekke fépp mënatu faa demal dig, budé dégg ñu ne ko sa njabot ña nga lay taxawal ci barap sangam difa def yu melni wax dëgg yalla loolu bokku na ci li dalal sen xel kon nak na ngeen sëriñ bi xelam dal na ci euh mi ngi leen di sante di leen ñaanal di leen gërëm di ñaan yalla aggalé ko xamnañ nañ ne sax liggéeyu yalla faaw dana ag wa yalla na yalla aggalé nak ci seeni loxo ni ngeen ko tambulé sun borom sàmm leen ba dara bañ leen a jot bañ àggale ko ci jàmm ñu dajewaat fi nag eh, di ko di ko di ko di ko jébbal sunu borom subhaanahu wa taala yàlla mën na ko yàlla na ko def wa ma dalika ala llahi bi asis yàlla dara jafewu ko kon dañuy ñaan rek di am mbégte nag xol bu rëy ndax xol bu sedd lool ndax wax dëgg yàlla ñëw gi nii ngeen ko réyale ci ay cant wax dëgg yàlla jàpp naa ne ëpp na ko jàpp naa ne ëpp na ci ñun ndax koo xam ne dafa ñëw ci yëfam <laughs> ñëw ci lu mu war a ñëw kon cant gi yëpp nag dama koy boole def ko muy ab soññee comme ni ko sëriñ bi waxee ndax dañ daan wax naan ku def la mu war a def ah, jëtt sant waaye ñeen ñi ne ah jar naa sant ndax ka ko mënoon a def te defu ko waaye ñun nag dañ koy jàppee rek ab soññee dañ koy jàppee ab soññee ndax sëriñ bi moom jàpp na ne fépp lu fa lu fa waaye nekk moo moo fa waroon taxaw def ko te loolu loolu mooy loolu mooy yéeneem loolu mooy pas-pasam kon nag bu ngeen bu ngeen bu ngeen taxawee fii woote ci lu mel nii da leen ciy sant gërëm leen ci ñaanal leen ci dëgëral leen ci itam zaahiran wa baatinan kon nag yàlla na yàlla nangu lépp yàlla na yàlla dëgëral ko yàlla defal ñu ci tawféex bu baax a baax a baax a baax kilifa yi itam ñu ko waxee euh, maam arab yi euh, ngantam mayoon na ko ndax ni mu ko waxee ku am njaboot gu mel nii mën a taxawee lu ne mënoon na ko waaye ak dikkam soññee rek la ci ñun kon noonu lañ koy jàppee dañuy jàpp ne ñoo wara soñé ñun ñi nga xamné ne desandi nañ katam euh loolu ab soñé la ci ñun ndax bu ngeen gisé mag ñi mom mi ak si muntaka euh li ñi mage mage seen yaram di metti lepp duñ bayé kenn dara loolu doy nañu ab junju day nañu sëkk ab junju ci né euh, ñom ña dem ba ag fo xamné ñepp japp nañ né Eh, seen seen yiw yu baax ya waroon naa doy te taxul bis bu set ñu gën a laxasaayu gën a nangoo gën a gën a gën a nangoo nangoo sonn xam nga ne tey koo gis sa sa yaram daw na ñeewant nga xam nga ne mag la te am na ngànt waaye teewut lépp lu ñu yëkkatil yàlla rek ñu bëgg a eh, taxaw defal ko seen bopp kon loolu ñun ñi nga xam ne ñoo ci toll ab soññee la ci ñun ci anam yëpp liggéeyal yàlla nag lu yaatu la Ah, yàlla dogal lii ngeen def jël seen temps booba ba léegi ngeen xalaat di daje dagg seen waxtu ba ci lii ngeen def yendoo ay coona waxtu wii gan ñi dem ngeen toll ci war a noppalu kenn ku nekk bàyyiwaat sa yitte dajawaat lépp ngir liggéey bu toll ndax ngir liggéey bu yàlla bi kon jotaay bii rek wane na seen pësteef ak seen bëgg liggéey yàlla ndax ay ay mag rekk eh, buñ buñ yendoo sonn ba heure bi nga xam ne ñun ñi gone yi sax euh, xaw a doye di xaw nañoo war a mën a yëg ay coono yéen nag ngeen war a toll ci nopp lu dajoo waat loowaat ngir ngir soññiwaat ñu ngir ngir ndax cant gi ab soññi rek laa koy mm-hmm. jàppe mm-hmm. ngir ngir soññiwaat ñu ñun ñoo ñoog maam alaaji ab soññi rek lañ koy jàppe ndax ndax ndax ndax nii ngeen nii ngeen ñu jiitale topp suñ ginnaaw mm-hmm. amuñu sañ-sañ lu dox nag ndax ndax sa way jur moom bu ne laa jiitul ma topp sa sa ginnaaw eh, dox rek nga mën a nga nga mën a def te am na ci solo nag. bu leen naagu ci ñun. ba tax ngeen di ñu bàyyi. loolu moom may may sunu sunu ñaan la ñun gone yi <laughs> ñoo koy ñaan mag ñi. Euh, lu lu lu seen xel dal dal ci ñun. dee leen ñaan waaye nag dee leen topp ginnaaw. ndax euh, loolu lu am solo la. Euh, na ko mag ma waxe rek. nee na bi mu dikkee ci tool bi fekk mbayif gi rafet lool. mu laaj ñu ko bay. ñu ne ko ñaar ñee mu xool leen ñi ay gone mu ne ak kan. ñu ne ko ah, ñun ñaar dee fi nekkoon mu ne waat ak kan ñu ne ah, ñun ñaar dee fi nekkoon. mu leen ak kan mu ne xanaa ak bëti baay waaw ah, bëti baay <laughs> mu ne ak bëti baay <laughs> kon kon kon bëti baay yooyu lu ci am solo la kon ñun itam dañ leen di delloowaat cant gi waaye di leen ñaanal yàlla dëgëral leen yéen ñi nga xam ne yéen ay yi ba ngeen gunge eh, gone yi ba li ñuy naan lépp sottee ci seen kanam wax ji daal manees na ci fanaan waaye sant moom mënta wees sant alaa xaal <laughs> sun xol sedd na kilifa yi itam seen xol sedd na seen xel dal na itam waaw seen xel dal na itam xanaa ñaan yàlla rek yàlla mi nga xamante nii eh, li lu àgg moo ko àggale mm-hmm. yàlla moomee yàlla na sàmm lii te dara bañ cee yàqu kenn bañ cee gàllankoor ba mu àgg niñ ko bëggee yàlla mën na ko yàlla na ko def ci barkeb islaam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa حاضر يا رب العالمين وعظمنا الأمة المصطفى شرورهم سبعين عاصمهم الشارع وشرفنا خليك مصطفى كل من يفدي إلى صلي دائما بتصلي عظيم لهم تمام وتمام اغفر لنا جميعا وعفنا جميعا وعفنا جميعا وعفنا جميعا وعفنا جميعا pour yàlla tëjal ku bëri ma dal saañal mag sakk dam ku yàlla tijjil ubbil saqil xale affaire ñëpp